mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi ngi koy liggéeyal lislaam ci toolam nga xam ne moo nekk ci Hisnul Abraar ci Thiel muy def saa liggéey bi mu jébbal ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba yebal fi Serigne Sidi moom Serigne Naar jenn ngir mu bàddali tool yooyu. ci bàcc gerte gi ak jëri ko roñ ngooñ mi ak roñ gerte gi dajale ko noppi na nag sëriñ Sidi mi nga xam ne moo ko doon saytu moom la sëriñ siiru joxaat ndigal bi liggéey bi noppee lépp mu jaay ko mu toll ci enveloppe bu toll ci ñaar fukki million ak benn mu ne ko demal teg ko ci loxol sëriñ Touba yow mi nga xamante ni bii yow la sëriñ bi yabaloon nga doon baddali tool yi lépp jaay nañ ko ba noppi toll na ci ñaar fukki ak million ak benn demal tegal ma ko ci loxol Serigne Touba ne ko addiyey Cheikh Mouhamadul Bachir. bokk yi xam ngeen ne fan yii yëpp ñu ngi coow coowul photo bi nga xamante ni bii moo génn ci archive yi nekk euh, Paris te mu dëppoo ak fondation jumaa yi njaareem kayit yi ngeen gis bokk yi Serigne Sidi di ko leeral Serigne Mountakha mooy kayit yu nga xamante ne bii. bi sëriñ tubaa xaadim rasul bëggee jumaa ji fu ko def te fekkoon na kër boppam gi li ko féete kanam di penku bi di tookërub ku ñu wax Maysa Njaay sëriñ bi bi ko bëggee dafa wax sëriñ Isaa ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu bëggee yokk eh, jumaam joojee foofee barab boobu saxdu ibnu abi waqaas moo ko moomoon ak zaydu ibnu zubayr waaye ñooñu abubakrin as-sadiq radiallahu anhu moom la yonent bi alayhi salaatu yabal ci ñoom ñu dem mu dem jënd ko ci ñoom ci ñeen fukki dinaar loolee nag suñ boroom joxaat na ma ndigal lii ci sama kanam dama bëgg nga toppatoo ko sëriñ isaa daal di wax ak euh, Maysa moom mu nga xam ne moom moomoon tookër bi na ko dama bëggoon kanam kër sëriñ bi sa tookër boobu nga wecci ma ko ci ay koppar ndax sëriñ bi def ko bëgg a dolli ci këram naar bi dafay bëgg naal ab jullikaay boo xamante ne bii euh, da ko fii def Massi Ndiaye waxtaan ak Serigne Issa ba ñu déggoo ci ñeen fukki dërëm ñeen fukki dërëm yooyu bu ñu ci déggee ba Serigne Issa toppatoo ñeen fukki dërëm yooyu loolu moo ne ci kayit wi ci la ñu àndandoo nag dem ci action commandant cercle bu Diourbel ñu di ko wax Labas Delacour kooku nag mooy ki nga xam ne moo témoyé Serigne Issa Diène témoyé Maysa Ndiaye mu jaay ko fi nga xam ne mooy pàkk bi jumaa ji nekk tey jii pakk boobu nag mi ko jënd le 22 mai 1917 le 22 mai 1917 la ko sëñ Issa jënd mooy signature yi nga xam ne moom la ko sëñ Sidi Naar di wan sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa loolu bu ñu ko jëndee le 22 mai 1917 bi ñu demee ci mais juin juillet août septembre le 11 septembre 1918 euh, ci lañ teg xeeru jumaa ji nag le 11 septembre 1918. te muy loo xam ne Serigne Touba moo wax ne sama borom moo ma ko digal waaye moo ma wax ne ma nag Issa Diène la nekk jëwriñi liggéey bi ñoo ngi sant Serigne Sidi mu Serigne Naar di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na ko fi borom gën a yàggal gën a doole ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.